mbokk taalibé yi ci ndigalu Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides Serigne Ahmadou Makhtar xalifa Darou Khoudoss Serigne Moustapha Mati Leye xalifa Serigne Bara Serigne Moulay Mbacké xalifa Serigne Balla Thioro Serigne Khadim Mbacké xalifa Serigne Cheikh Thioro comité de pilotage journée culturelle et religieuse Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñoo am mbégte di lay digal 16e édition bi ñuy amal samedi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2023 ca Sisas ren ñu tuddee ko Serigne Cheikh Thioro ak Serigne Balla Thioro presse bi ni ñu ko waxee ñu jaajëfal leen bu baax a baax ci euh, taxawaay bi ngeen taxaw waaw daje mi nag li ko li ko li ko li ko waral rek mooy euh, ki nga xam ne mooy sëñ Basiru Xaadim Awa moo amoon initiative wu euh, defal maam sëñ Baara Mbàkke journée culturelle wane ko euh, ci ci anam yi nga xam ne moom mooy ci anamu yi nga xam ne mooy anam yu bees yi ca jaarale ko ci xalaat yu bees yi moo waraloon ñu taxawal journée bi ci ay anam yu yàgg moom nag muy nit koo xam ne di jàmbaar ci bis bi tey bu buñ demee ba journée bi àgg fi mu àgg moom moo am volonté bu bu mag boobu waaye nag ànd ak bokk yi ñi nga xam ne ñoom la bokkal Serigne Touba parce que ñu koy door euh, ñun ñoo nekkoon moom membre fondateur yi ñu ànd ak moom ñu dem ci kër kilifa diine yëpp kër kilifa doomi Serigne ñu bari ñu ngi fi ñu ànd ak ñoom dem ci ñoom ñu joxe ñu ay ndigal ñu dem ci kër seex yi dem fépp ànd ak ñi nga xam ne ñooy waa kër Serigne Baara yi ñëpp muy góor ak jigéen dañ daan def réunion fii dakaar di ko def Touba nga xam ne bis bi daan nañ ci am ñaari réunion yoo xam ne dañ koy xëy def ko Touba gon si def ko dakaar ànd ak ñoom ci liggéey bi ba tey jii ñuy wax ak yéen ñu ànd ak ñoom ci liggéey bi ba tey journée bi mu tax mu àgg fi mu àgg ñu koy tuddee nag chaque année kenn ci doomi Serigne Touba yi di jàngale aw meloom ak tolluwaayam ci yoon wi ak tolluwaayam ci diine ba mu doomi Serigne Touba yi xam ne mat nañu ñu àgg ci ñenn ci ay ay ay rakkam wala ay magam Euh, ñu jaar ci magam ju baax ji Maam Mor Jaara ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom room nañ tey jii ñu ngi ci euh, sëñ Cheikh Thioro ñoom lañ moom lañ ko tudda ren ak sëñ Balla coro nga xam ne ñoom itam ñu amoon taxawaay lañ ci ci kër Serigne Touba waaye ñu amoon taxawaay ci biir Sénégal la ñu kon nag muy bis boo xam ne nii bis bu bu yaatu la boo xam ne nii bu am solo la euh, sëñ Bassirou Khadim Awa tamit di génn nag ay moyens yu am solo yoo xam ne ni colossal la yoo xam ne tey jii amul ci Sénégal benn nit boo xam di nga jël moyens yu toll noonu di ko def ci ab journée culturelle ci Sénégal amul existé wul kon nag moom dañu wax ne dañ koy euh, amal njukkal euh, Sénégal amel na ko njukkal ndax euh, mu ngi am waaru rëy mi nga xam ne mi ngi koy bay ci ci ci ci ci delloo si démb ngir nit ñi mën cee am am am njàngat ngir mën koo jariñoo ci am na lu bari lu mu def ci ci ndaw ñi am na lu mu ba mag ñi sax laay bëgg mën a wax am na lu bari lu mu def ci ñoom parce que am na lu bari loo xam ne umpoon na nit ñi ci Serigne Bara te sëñ Baara njariñoon neen la ci ci ci ci ni mu daan dunde ak mbindeef yi waaye ni mu daan dunde tamit ak it ñi nga xam mooy mooy ni mu daan dimbalee réew mi kon dina baax trop ñu mel ne eh, bu ngeen fi teewee ñu ñu leeral leen loolu nga xam ne tamit eh, presse bi yàgg nañu ànd ak ñoom ci ay année yu yàgg di ci liggéey ñoom itam ñu am ci taxawaay yu yaatoo yaatu ñu ngi leen ci gërëm bu baax a baax di leen wax ne nag ñu ngi dugg nañ ci bis bi ndax tey bu def see 15 jours wala 20 jours mën nañu wax ne bis bi tàmbali na ndax tolluwaayu bis bi moo noonu kon nag ñu ngi leen di invité chaque chaque samedi dañu am fi réunion bu ñu demee ba des ay ay fan yu néew chaque chaque jour dinañu nekk ci foire bi ngir man di finaliser liggéey bi ñu li ñu ci desee rey mooy day waral ñuy chaque année chaque cinq chaque euh, samedi dañuy am rion boo xam ne ñu ngi koy amal fii ci foire bi. ngir mën a tënk li nga xam ne moom la ñu jublu muy bés bi naka lañ koy naka lay mën a doxee naka lañ koy mën a yembale ba lépp jaar ci aw yoon ndax ku ne xam ne ne lu ndaje bu tool noonu ku koy ku koy organiser jaar war na sax ndax bu njëkk si mois lañ daan am di ko réunion léegi na xëy na euh, am na lu bari loo xam ne yomb yomb na si ñun ndax euh, maîtriser nañ ko ak it ki nga xam ne mooy coordinateur bi jox na yitte bis bi ba nga xam ne lu bëri mu ngi koy def tey jii moo tax euh, réunion bi teewu ci ndax teel na ma woo ne ma dafa bëggoon ñu teel a tàmbali bi ngir mu mën a am kilifa yuñ ko xam ne dañ ko ñoo ko woo pour mu dajeek ñoom ah, finalement ñëw na ci foire bi mais dafa ñëwaat mu amatul temps pour toog mu dem ci baas bi xool liggéey ba nu mu demee daal di génn dem ah, moo tax waaye teewul ñi fi nekk tamit membre commité bi lañu euh, mat ku nekk ci ñoom mu moo fi nekkul wala kenn nekku fi tamit kenn fu mu doon a doon wala bu fi kilifa yi nekkul ñi fi nekk ci membre yi taalibe yi tamit kenn ku mu doon ci ñoom mën ngaa mën ngaa organiser réunion bi ndax ñoom ñoo bokk liggéey bi ci gis nga ni réunion bi demee boo ko boo ko ko xoolee danga xam ne fii ñi fi nekk ñoo bokk ñoo bokk même coordination bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu tàmm di liggéey kon ñu ngi sant bu baax di dellu di gërëm suñu kilifa yi eh, soxna Umu Kalsoom di la di la jëfal bu baax a baax ci teewaay bi di la jaajëfal bu baax ci jàppale ko jàppale sa waajur wi ci liggéey bi donte soxna nga waaye am na soxna yoo xam ne nii mën na leen a boole ci ci ci ci jàmbaar ñi jàmbaari góor ñi ñu ngi leen di sant bu baax yéen itam yéen ñëpp jërë ngeen jëf ñu ngi sant bu baax di sant télévision yi jërë ngeen jëf jërëjëf suñu xaadim tamit ñu ngi koy sant moom itam suñu gan gi moom itam mu ñëw ak eh, fas yéene ànd ak ñun ci liggéey bi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax